wa sayyidil kawnayni baasitan naxiim salli bi tasliimin alaa ayni naxiim wa sayyidil mbokk yi jërë ngeen jëf di rafetlu ànd beeg euh, seen site Tawfekh Production di site bi ngeen taamu site bi nga xamante ne saa su ne dañ ko euh, dañ ko miin ci information ci actualité ci lépp li nga xamante ne xew fi ci réew Sénégal tey jii nag ñu ngi fii si université Cheikh Anta Diop Ndakaaru boo ñu université Anta Diop Ndakaaru nekk daara ju kawe ji nekk bërëb bi nga xamante ni ràññeeku na loolu ci wàllug euh, ci wàllug ñàng bu ñu fi ne indi nag moom moo di ab xew-xew diine aw xew-xew yoonu murit mu mel ni euh, daayira bi nga xamante ne mooy Miftaaxul euh, Muna nekk benn daayira bi nga xamante ne fii la ko sancee si université Cheikh Anta Diop bu euh, Ndakaaru euh, mu mel ni depuis année 2004 dañu ko euh, samp fii ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lenn képp ko tax a jóg mooy vulgariser yëfi Serigne Touba Mbacke Khadim Rasoul tey jii nag li moo nekk nag quatrième édition bi nga xamante dañu organisé seen ay journée jëm ci waxtaane Serigne Touba waxtaane Khadim Rasoul jàng xasida Serigne Touba yi bernde maanaam def ak cant ren nag mooy seen quatrième édition maanaam ci biir édition bi mu nekk ay waxtaan di fi am ay exposition ay panel ay waxtaan exposition bi nekk benn moment bu faar bi nga xamante ni wax dëgg yàlla moment bu important la parce exposition bi di nga ci gis ay euh, nataalu ku tedd ki njabootu Serigne Touba Khadim Rasoul seen i jaar-jaar maanaam leur vie ak tamit li nga xamante moo seen ay œuvre seen ay jëp ci kaw suuf nekk li nga xamante ne moom nañu mën a nemmeeku ci exposition bi euh, maanaam képp ku fi ku koy xool di nga mën a euh, am xam-xam bu yees peex ci li nga xamante ne mooy dunduk Serigne ak akum njabootam. mu mel ni wax dëgg yàlla nees kiis ñu ànd ak yéen ànd ak caméraman Mourtala Gueye ñu ànd daal di wax daal wan li nga xamante ne moo di xew si euh, journée culturelle ma daayira Miftahul euh, Muna maanaam seen sant cant bi nga xamante ne tey jii dañ koy organisé samedi méngoog euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet ci atum 2019 fii si université Cheikh Anta Diop bu Dakar wa alihi ma sihaabil kumali warfa li wajhikal karimi amali jërë ngeen jëf ba léegi ñu ngi si université Cheikh Anta Diop euh, bu Ndakaaru jëm ci journée euh, culturelle daayira euh, Miftahoul Mouna def seen journée culturelle jëm ci quatrième édition maanaam ak cant mu mel ni nag ma jàkkaaroog benn jëmb ji nga xamante ne daa bokk ci kuréel Miftahoul Mouna sëñ bi d'abord ba nga présenté wu waaw salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk jullit mbokk taalibe ñoo leen nuyu di leen jaar bu baax di leen balu ak di leen balaq ñun la Ahmed Sall bokk ci daayira Miftahoul Mouna ñu ngi leen di ziar bu bëree bëri jërë ngeen jëf. ndax mën nga ñëw euh, d' abord d' abord mën nga ñëw si daayira bi Miftaaxul Muna ak tamit euh, ngir ñëpp mën ko xam daal. waaw jërëjëf euh, naa loolu ñu ngi leen di dalal bu baax di bég lool ci dal bi ngeen ñëw bi ngeen ñëw ci exposition bi nga xam ne dañu ko def jëmale ko ci màggalu Mbàkke Bari di ko waajalee. màggal gi nag màggal màggal la goo xam ne dañ koy def ngir waajal màgg màggal demuk sëñ Tuubaa waa waa daayira Miftaahul Muna bi nga xam ne ñoo nekk fii université te ay ndaw yi jolof jolof di ay ko di ko waajalee chaque année màggal gi ren nekk seen ñeenteelu édition daayira boobu nag ay jolof jolof ñoo ko am mu mu mu mu muy ay jolof jolof yu lënkaloo ne am nañ luñ bokk muy Mbàkke Baari bi nga xam ne ndam la di di di tawfeex boo xam ne sëñ Tuubaa defal nañ ko ci dëkk boobu kon sabab bi daal mooy ay jolof-jolof lañ am yéen yaatal dëkk boo nga xam ne moom mooy Mbàkke Baari googu nga xam ne sëñ Tuubaa fa la waajee def tukkeem bu taw feex googu nga xam ne ko jëriñoo comme comme niñ ko baaxoo di defee at mu jot rek Euh, moom journée bi moom daanaka dañ koy dañuy def exposition génn li ci ëppoon li ci ëpp solo mooy yaatal gi ñuy yaatal njëriñ li Mbacke Bari am ak solo si am ak man man ni ñu koy waxee la place bi Mbacke Bari dans si am ci yoonu Mouride loolu nag chaque année daanaka moom la ñuy moom la ñuy fësal di di ci apporter ay touches yu ci lañ ci lañ ciy jokkoog presse yi muy gën muy gën a yaatu ren nag dañoo am innovation bu bees mooy dañoo am yéene génn ci génn ko ab téere daanaka loolu tënk nañ ko ba mu ci yoon euh, innovation majeure boo xam ne daal moom la ñuy présenté mbooloo mooy téere bi nga xam ko te te incha diggante fii ak déwén te bu bu yàlla defee tawfee sax ba fii gi bu jàppandee incha allah ko génne présenté ko public bi muy jullit yëpp ak ak mbokk taalibe incha euh, waa exposition moom comme ni ko xamee fii day milieu universitaire barab bi di barab barabu jàng ak xam nga xam ne barabu xam-xam la moo tax ñun li njëkk a jiital mooy nañ ko yaatal ci xam-xam Sëñ Tuubaa moom ku ne xam na ne moom léppam xam-xam la daf ne al ilmu wala amul jawharaani li li nga xam ne mooy ubbi nit yëpp kon ñun moo tax ñu jël lépp loo xam ne xam-xam la ak li tey tey wane ne Mbàkke rek ñu jiitalee ko rawatina nag tax mu wax ko moom ci téeram boobu di Minanul Baaxarin ne téeram boobu di ci wax ne euh, Mbàkke Mbacke Bari mi ngi ko sanc ngir jàng ak xam-xam ko sanc lu may xam jàng ak kon loolu moo gën a moo gën a waral ci ñu def exposition bi exposition bi aussi ñu séparé ko en partie def ko ay yu bëri def ko def def partie bi ñu réservé nga xam dañuy présenté Mbacke Bari bi fi mu jógee état bi nga xam ne jaar na fa ba nii mu ñëwaatee ndax dëkk bi ku ko xam ku ne xam ne da doon da doon dund di gent ba nim excès tey ci jamono suñu jëmm jamono jii loolu lépp ñu ñu réserver ko ndax lu yaatu la ñu jël tamit parti boo xam ne dañ ciy développé njëriñ li nga xam ne am na ci dëkk ba ak solo sa ak lenn ci li nga xam ne xëy na sax danañu sub mooy lenn ci njëriñ yi baatin yi fa nekk ndax barab suñ duwaa moom fu mu fu mu jaar fu ne bàyyi fay mbóot Ah, loolu bokk na ci li ñuy gën a fasal ci exposition bi. ginnaaw exposition bi ndax mën nga ñëw d' abord programme beeg panel panel bi moom comme ko xamee rek ku ñuy ku ñuy wax sëñ Fallou Mbacke di doomu sëñ Cheikh Jodel moom mi bi ak wax sëñ euh, sëñ Mame Thierno ak yi nga xam ne tamit bokk nañ ci daara ji danañ def ay xeet ay ay ay xeetu contribution ak képp ku ku ci ku mu mënti doon rek euh, loolu tamit ñu ngi ko kaat ci rek thème bi nga xam ne moom lañ jàpp Mbacke Baare mooy xam-xam ni sëñ Tuubaa doon tànnee barab yi ngir yaatal fa xam-xam jàng ak jàngale sëriñ bi ni mu daan tànnee ay barab ngir jàng ak jàngale ndax ku ne xam na ne Mbàkke bokk na ci li tax mu ngi jël ay soxna ñi ngi bàyyi ko fu ne di ñëw ci sëñ Tuubaa ndax ko fu nekk di ñëw di ko seet ne dina fa a ber ñi nga xam ne dañuy jàng di bokk na ci li tax mu gënoon tànn Mbàkke Bari bokk boobu moom lañ jëlaat dekkalaat ko gën ko euh, yaatalal mbokk yi mooy mooy sëñ bi ni mu tànnee barab boobu di Mbàkke Bari ngir jàng ak jàngale. de la fin sa kàddu waaw mooy xanaa di gën a soññ bu baax ñu ñu ñu gëstu mbiri sëñ bi waaw te fexe tamit di di xool di dem ci barab yi nga xam ne jaar na fa muy lenn Mbàkke Bari nga xam ne benn la ci waaye lu mel ni Thièyène lu mel ni Jolof laa tàmbalee mooy Thièyène jooju. mooy mooy mooy mooy Mbacke Bari mooy Maayomba sax ba ba Maayomba ba ba Lambarana ba ba Libreville yooyu yëpp mooy barab yoo xam ne Sëñ Tuubaa jaar na fa ndax fépp fu mu jaar rek bàyyi na fa dara ñu ñu ñu ñu góorgóorloo ci xam ci xam-xam di ci jiital sama bopp bu baax a baax te moytu rumeur moytu rumeur bu baax ndax loolu daanaka Cheikh Abdoulaye Dieye soññ na ko ci livre bi ñu bëree bëri sooy gëstu seen téere bokk nañ ci li ñuy wax te dafa am rumeur yu bëri yoo xam ne day daw ci yoon wi te bokku ci waaw di di sant ñëpp nag di jégalu bu baax yéen tamit di leen sant bu baax a baax jërëjëf jërëjëf بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين كرا لنا أجلنا فنكفى ضرا بدا محيا بدا وسيدا وكل من